li si yéene kaay yi ak Ami dem Deme Senghor. internet yu 5 TV alal ma seeni nopp ma dégtaleel li si yéene kaay yi. courant bekk coow ba ca am mooy ponk bi gën fës ci yéenekaay yi ñu door ko ak laas yéenekaay bi ne lu ñeel defaru courant bi centrale thermique bu Bargny moo ngi ci ay jafe-jafe ak benn jege ñaaleem di Senelec direct news di ñu ci xibaar ni centrale thermique bu Bargny topp nañu ko ba mu sës li ñu xamle rek mooy Senelec daa bëgg a daaneel centrale boobee ndax war na leen a jox lu toll ci ñeent fukki milliards yu tegal juróom-ñaar ci kopparu CFA gannaaw bi ñu leen joxee lu ëpp ñeenti téeméeri junniy mégawatt Walf fësal na ni Senelec jot nañu décharge bu ñeent fukki milliards suuf di leen ca feelu ndax fësal na ni sa njëlbeenu traque bu Senelec ak centrale à sorbon bu Bargny ñeent fukki milliards ak juróom-ñaar ak ay kàcc moo si am yéenekaay bi yokk duñu si xamal ni centrale bi jox na waa lekk lu toll si ñeenti téeméeri junniy mégawatt te ba démb ci guddi rekk këru liggéeyukaay boobu jëm ci wàllu ko courant fayuñu leen La Tribune dolli ci ni Senelec Akilee ak compteur intelligent yi ab scandale électrique moo ci am ndax boo boolee centrale yépp lu ëpp juróom-ñaar fukk ak ñaar ci ay milliards moo ci am te Pawacom li ñu joxe ci benn milliard la toll te moo ëpp bu Akilee bi loolee lépp nag boo ko boolee moo tax ba l'observateur bind ni le pays sur une bombe ñu bàyyi coowala courant bi te àddu coowal coronavirus bi critique di ñu ci xibaar ni ngir bañ ku leen xeeb ak ku leen beddi moo tax ba suñu kilifa yi di làq ni dañoo feebar ba far jaaree ci faatu yéenekaay bi dolli ci ni faj bi ñuy faj way tawat yi ci seen kër yi tàmbali naa jur ay musiba limug ñi faatu nag ci mbas mi jamono ji àgg na ba ci ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ñeen fukki malaat ak juróom-ñeent ñoo nga ja sowetaas jamono ji ndax feebar bi dalee na sonal waaye laas yéenekaay moo ci région Kaolack ndax jamono ji lii di cas communautaire yi ñoo nga fay wéy di gën a yokku xibaar bu neex lañu waa enquête yéenekaay indil muy lu ñeel xeex bi ñuy xeex covid 19 bi réewum Russie am na nañu vaccin bu njëkk bi waaye li vox populi xëy fësal lu doy waar la ndax xamle na ni lu toll ci fukki sénégalais ak juróom benn faat nañu leen ca bitim réew ci diiru ko juróom ñetti weer rekk ci ñoom nag bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi ñenn ñi dañu leen a faat ñeneen ñi nag anam ya ñu faatoo dara ca ca hôpital dalal jàmm bu géejawaay ndax kii di professeur Papa Touré di PCA ba fa teggi na ndombal tànkam Moussa sàmm Daf di directeur bu hôpital ba xamle na si yéenekaay bi ne nan la nit war a démissionner te mu xam ni fukki fan ak ñett rek moo des si mandaawam baccalauréat bu ren bi bu ñu sukkandikoo si le quotidien door na tey ndax lu ñeel anticiper filo yi tàmbali na ba tax critique ne élèves yi dinañu philosophie ak jàngoro ji candidat yi di maanaam ñi war a bokk si examen yi nag vox populi moo ngi ñu si xamal ni seenu lim toll na si téeméeri junni yu tegal juróom fukk ak ñaari doomu aadama exclusif yérekaay la ñuy jeexalee moom mi xëy ak ab kawteef bu am ci sunu kilifa yi ndax benn DG lañu ne dañu ko filmer nu maanaam ni ko yaayam juree fii la ñuy ndar keppee si yéenekaay yi ma delloo leen seeni nopp ba ëllëg incha allah jërë ngeen jëf